2020. Nous avons reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1711 tests réalisés, 172 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,05%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 90 cas contacts suivis par nos services et 82 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les villes ou quartiers suivants. Saint-Louis 11, Dakar Plateau Les Maris 6, Thiès 6, Kermassar 5, Mour 4, Sangalkam 4 Yoff 4 Diourbel Kolda 3 Liberté 6 3 Tivaouane 3 Bignona 2 Kaolack 2 Mermoz 2 Parcelles Assainies 2 Pikine 2 Diofior 1 Diouloulou 1 Guédiawaye 1 Kédougou 1 Louga 1 Mbao 1 Oussouye 1 Pout 1 Rufisque 1 Thionck-Essyl 1 et Ziguinchor 1 85 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris 39 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Deux décès ont été enregistrés ce jeudi 6 août 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 10 887 cas ont été déclarés positifs, dont 7 186 guéris 225 décédés est donc 3475 sous traitement. Le ministère de la Santé de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective en insistant sur les mesures barrières parmi lesquelles le port obligatoire et correct de masques dans les lieux publics, les transports et les rassemblements. Je vous remercie de votre attention. salaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ci ministère de la santé et de l'action sociale tey ajuma juróom-ñaari fan ci weeru août bi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajalim ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak benn test yu ñu def téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñoo ci positif ci ñooñu am nañ ci juróom-ñeent fukka contact mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci mbas mi fekk ñi leen ko wàll mooy dañoo jaxaso woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci juróom-ñetti fukk ak ñaar ñi xam ne ay cas communautaire ñooñu dañoo jot ci doomu jàngoro ji te xamuñu ku leen ko wàll ñooñu nag lim bi nii la tëddee Saint-Louis am na ci fukk ak benn Dakar Plateau am ci juróom benn Mariste am ci juróom-benn Thiès am juróom-benn Kër Massar am juróom mbuur am ñeent Sangalkam am na ci ñeent yoof am na ci ñeent Diourbel am na ci ñeent ñett Kolda am ci ñett Liberté 6 am ci ñett Tivaouane am ci ñett Bignona am ñaar Kaolack am ñaar Mermoz am ñaar Parcelles Assainies am ñaar Pikine am ñaar Touba am na ñaar Diamniadio am benn jofior am benn Diouloulou am benn Guédiawaye am benn Kédougou am benn Louga am benn Mbao am benn Oussouye am benn Pout am benn Rufisque am benn Thionck am benn et Ziguinchor am na benn juróom-ñett fukk ak juróom si ñi ñu entré woon wér nañu bu ci yàlla àndee dinañ génn tey fanweer ak juróom-ñeent ñu nga ci réanimation ñaari malade ñàkk nañ seen bakkan ba si dëmb alxames juróom benn fan ci weeru ut bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari cas ñi xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñaari junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn wér nañ ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñàkk nañ seen bakkan mu des ñetti ak ñeenti ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci hôpital yi walla ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñu génn àdduna yàlla xaraleen àjjana te jégal leen mu ngi ñaanal tamit ñi nga xam ne ñu ngi ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy fàttali bés bu nekk ci yooyu kàddu nag ñu ngi ci encore euh, baamtuwaat importance mooy maanaam solo bi yore sa masque fépp fooy dem ban importance la am nit ñi nañu jëfandikoo seen masque jëfandikoo ci anam yiñ ko santaane jërë ngeen jëf maa ngi leen di sant di leen gërëm